ambiance ak cawarte lañuy bàyyeekoo Pikine fief Ama Baldé di waajale combat diggante modulo ak Ama yaa ah, ni ma ko gisee comme ça nii ni ma ko gisee y l'ambiance ambiance am na bon les gens sont calmes c'est normal nag parce que su su combat amee les gens sont euphoriques comme démb nii xam nga ils sont seen mbër lañu am ñun on de Pikine ah on est de Pikine ñun waa pikin waa Pikine lañu waa Pikine lañu am. jàpp nañ ni rek combat bi ñu digmal du simple combat kese ci ñoom ñi bàyyeekoo Pikine. combat bi ñuy jub moom wax dëgg yàlla combat royal la ba pare nekk combat boo xamante ni combat Pikine la ndax euh, combat bi nga xamante ne la combat roi des arènes la maanaam xam nga combat roi des arènes bokkul ak yenn combat yi waaw moo tax euh, Pikine ñëpp jug taxaw. Euh, jàppale ki nga xamante ne mooy Ama Balde ngir mu dem jëli li ñu moom ndax li muy jëli du moom kese moo koy moom gaa dina bëre dina ci am xaalis dina ci am couronne mais buñ ne roi des arènes fan la jëm Pikine la ñuy wax waaw kon nag euh, lii yëfu Pikine la waaw yëfu Pikine la moo tax ñëpp a ngi ci ginnaawam ndax démb boo xoolee open press bi waa Pikine ñëpp kenn desul stade fees na dell képp koo xamante ne rek nitu Ama nga nekk di jàppale Ama muy ak ñoo xamante ne Pikine lañ dëkk mobiliser newu ñëw euh, fi nga xamante ne mooy stade ah waaw mais il faut ñu am confiance xam nga Ama xale la ba pare nekk koo xamante ni papa mbër la ñu ngéntee ko xaalisu mbër euh, boole ci aussi mu nekk loo xamante ni courant courant bi fii la jóge dem si Modou kon kooku daf ko war a demaat jëli ko indiwaat ko delloosi ko xam nga tey bu ma duggee sa néeg jël fa peñe normalement su ma ko indiwul looy def boo toogee ba ci kanam li nga ñëw laaj ma peñe bi voilà noonu la demee moo tax kon couronne bi il faut ñu jëli ko indiwaat ko fu mu nekkoon muy pikin waaw moo tax ñu am confiance daal te li tax ñu am confiance mooy sunu mbër la nga xale la ba pare papaam yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana euh, Paa Fallaye Balde. lii rek la doon ñaan yàlla te fi mu tëdd ne defe naa ne tey bu Ama Baldé daanee jël li nga xamante ne mooy couronne bi dina nekk loo xamante ni fi mu nekk dina kontaan waa Pikine ñëpp kontaan moo tax ñu am confiance daal te xam ne day dem jëli ko indi ko. am itamit confiance bu mat sëkk ci seen doom mi di Ama Baldé. waaw ñoo ngi koy préparé bu baax man Omar Mbaaxum séeréeru Ama Baldé Pikine cité police. waaw di ñaanal Ama Baldé mu am ndam bu sedd guy si ko Modou loolu mooy lu ñu war waaw ndax ñun ay gamoom la ñu yàgg nañ du tey loolu lu yàgg la jamono Jules Baldé ba léegi boo ko waxee kër Ngor Senghor moom xam na bu baax ma ñëwaat téyewaat doomam Jacob Baldé maay ànd ak moom ñetti at si mbapat yi di ko yóbbu muy muy bëre di daan waaw Ama nag loolu lañ bugg si moom diggante séeréer ak tukulóor loolu donc lañ koy ñaanal waaw. am na nag confiance totale totale amuñu sax luñ ciy ragal yàlla nag moo yor ndam yàlla ñu ko yàlla may ndam bu sëdd guy waaw si ñoom ñëpp waaw ñoom suñuy gàmmu lañ yàgg na. su fekkee ne dañu am feneen mbër sax képp koo xam ne fii ngay bëri te nga dëkk Pikine yow la ñuy àndal di la ñaanal yàlla may la ndam parce que ñun benn lañu muy sama doom ak sama waa kër yëpp soo amaa di bëri ak samay xarit ñëppay topp ci ginnaaw rien que rien rien que ci yàlla mën ko ndam parce que man euh, ma noonu ci affaire combat ci affaire mbër mais ni moo ko gisee je sais que il a du naturel bon fu muy dem di entraîner duma fa nekk mais xool naa ko je sais que c'est du naturel te mbër lépp looy def da ngay naturel naturel bon yeneen yëpp ci la bokk mais suñu duggee ci biir arène bi ngay xam ndax kii entraîné na ndax am na di naturel parce que d'abord su fekkee ne amul quelque de naturel soo ci dugalee leneen ëllëg mën na la gaañ te bëri la rek da ngay daan tey suba sa morom daan la waaw mais pour nga bañ a abuser si sa santé lépp looy def il faut le faire dans le naturel waaw man ça man kooku sama avis personnel la. mais xoolal mais mais xam nga loolu du ci ñàkk même soo demee en Europe moi j'ai fait même soo demee en Europe les gilets jaunes ñi nga xam ne dañuy manifester soo demee euh, euh, waa <laughs> les ultras du Paris Saint-Germain voilà xam nga ñoom ay tubaab lañu ay nit lañu mais toujours dañuy manifester mais ci biir manifestation bi day am ñoo xam ne leneen moo la tax a jóg mais ñooñu lu leen tax a jóg mécontentement lay doon rek wala ñu kontaan topp ci benn degré boo xam ne lu ñuy def sax duñ ci tenir compte waaw mais ce sont des choses qu'ils font malgré ça et pour te prouver fu mu nekk bés bu jeexoon tey doo gis fi dara mais su amee day am ñu jóge fële ñuy jóge fële ñuy jóge fële ñu rax ci biir suñu raxee ci biir donc on di toujours pikin mais comme les événements qui se sont passés y a beaucoup de gens yoo xam ne dañuy ñëw te ñun duñu waa Pikine mais nag ñun on nous a toujours euh, taxé de voilà entre guillemets mais nag ñun xamante nañu suñu bopp nous vivons en solidarité ah vraiment nous vivons en communauté et nous sommes tous soudés ñàkkum kaaraange bi ñuy nemmeeku sayu komba amee nekk na lu leen sonal lool waaye ñu ngi am yaakaar ci suñu takk yi diwoo itamit ndaw yi ñu ànd ak dàll